Euh, di leen wax yéen a ngi si euh, seen plateau euh, l'info du matin li nga xam ne rek moom la ñuy waxtaanee fii major comme nuñ ko doon waxee tout à l'heure rek ñu ñëwaat ak yow ci li nga xam ne gis nañ ni depuis 2021 l'état du Sénégal est chahuté comme ni ko certaines personnes yi di defee vu que est-ce que loolu jàppoo ni nekkoon na loo xamante ni dafa doon tiital askanu Sénégal gis nañ ni récemment état bi ak ñi nga xam ne ñooy force de l'ordre bi dugal nañ seen loxo bu baax a baax jëm jëm li nga xam ne mooy sécurité bu Sénégal puisque yow euh, yaa ngay dox ci li nga xam ne mooy enquête lekk yan leeral ngay indi ci mbir moomu. Euh, état bi au début dafa foogoon ne l'état pensait avoir affaire avec des politiciens. comme mm-hmm. Abdoulaye Wade des politiciens comme les autres. Sénégal il y a qu'un seul politicien avant Pastef qui mm-hmm. avait fait des troubles Abdoulaye Wade la Abdoulaye Wade daan def ay troubles man de Abdoulaye daan dox ñu koy tere. Mm-hmm. loolu rek la daan def dox ñu kar ko tere ko loolu mais Abdoulaye Ward n'a jamais commandité ay assassinat ay destruction des biens publics au sens étymologique du terme daañu song ay seen lekk ak mais c'était un prémisse mais après il a compris que du woon voie pour nous, le pouvoir mhm. mu dugg ci gouvernement bi ñaari yoon génnaat jël ay leçons xam ne def def ndànk ba sénégalais ñëw mhm. mais c'est-à-dire ñii dañ ci rax attaque à la sûreté nationale. Mhm. Sûreté nationale mënoo ko mënoo attaqué attaquer sûreté nationale quand tu commets des crimes en politique là-bas ça devient plus de la politique Et eh, l'incendie volontaire est un crime. Mhm. et puis l'incendie, attentat un attentat. parce que ont ñoo utilisé utiliser ay explosifs explosif explosif Ils ont nga boo le cocktail molotov devenir, wax mhm. fragmentation parce que c'est des débris de verre qui font une fragmentation bu la mën la

amul gosse boo ci japp te du la wax la jël ak nangam te dañ lay solloo sax insigne gosse dañuy def ba pare di filmer pour confirmer pour ñu joxaat leen xaalis ak restant. alors loolu ndax nekkul danger ci ñi nga xam ñoy ñooy mais bien sûr ils ont perverti les jeunes dugal leen dans la violence dans le danger il y a beaucoup de jeunes yo yoo bu ne wututuñ bu wutuñ dara dañ toppoon projet bi yaakaar day ñëw rek ñu def leen gang jox leen liggéey ban xaliss lañ leen jox. Mhm. bo waxee ñu naan Farba Ngom ak nangam mais ay ay di gëmloo ay sénégalais que yéen seen tekki bis bu ñu jëloon pouvoir dañuy dem nangul fi Farba Ngom Mm-hmm. alors yow fan nga teg ni le fait que lépp luy am rek euh, dañu ci euh, da ngay faral ci sa biir kàddu euh, di pointer du doigt ak ñi nga xam ne ñoo far biir Pastef. mais mais parce que ñoom ñoo ñoo ñoo imprudent ba wane seen jikko exécuté xamul tax ñoom dañoo wax verbe ba pare exécuté ko. Mm-hmm. dañoo def verbe ba pare exécuté ko. gis nga ñoom ñoom bu ñu daje woon ku mel ni ñun. Mm-hmm. man je les règle par les armes. gis nga goos bu génn di di di sol kagul di lakk dama lay rafal nga tëdd. mais bien sûr c'est la légitime défense madame <laughs> mais imagine nga jël ay ay forces de sécurité nangam nga jël gens qui bañ la alors qu'ils ont la possibilité mmh. nga jël ay des mais qui di di song man la mais est-ce que tamit suñu renseignement généraux mais renseignement généraux des man sama métier la mmh.

yow man ma taxaw sa kanam balu fetal ray la te te ray bënduma man mën nu mën a nekkee il faut qu'ils arrêtent ñi dee ñoom ñoo leen rey ci biir gu nit ñi xam nga loolu ils ont été imprudents mhm. te gis nga bis waa ji c'est-à-dire euh, l'État a été prudent parce que c'est une affaire politique l'État n'a pas voulu aller plus loin le ministre de l'Intérieur n'a pas voulu incriminer les gens comme ça à tort tout le temps di def day mujj chasse à l'homme mhm. au début soo commencé woon jàpp rek da ngay xam à on voit des tirs obliques tirs obliques

Nous les brigade là c'est interdit par les règlements de la effectivement par le décret 74 571 du 14 juin 1974 lorsque les postes que nous occupons ne peuvent être défendus autre que par les armes on en donc l'ordre du milieu c'est tout le monde la légal C'est licite et conforme au droit loolu mooy logique les postes de sécurité mais ay gosses, yu nekk ci biir groupe ay bal oblique ay paaka ay baïonnette mais nga bëgg gëm loo réew mi force de sécurité police gendarmerie il faut arrêter Ils les police gendarmerie Ils tirer. ils rapport parce qu'ils sont dans la légalité. Mm-hmm. man et pourtant nañ fi ay ñu mais si côté force de l'ordre yi lay jógee. yan leer la non c'est la manipulation. ñoom il fallait qu'il tue mais am na jour boo xam ne université de Dakar man sama doom bi nekk université ñëw na nee na père ñun ñëpp a daw génn parce que on nous a fait comprendre que mhm. gars yi dañoo bëgg rey ci ñun nit pour incriminer état bi keroog seede yàlla ñëpp a daw goos yëpp a mhm. daw génn ci boobu mucc moo tax ñoom ñu ñëwaat lakk xam nga technique yi ñuy def dañ ko jàng xam <laughs> gis nga laa mën a subversive ñun mooy suñu métier investigation mooy suñu métier a tout appris comment on connaît tout comme ñoo leen ci man tax mhm. ñun li ñuy def mën ko bind ko préparer ñoom mënuñu ko ñoom wax la def ils n'ont pas de chef ils n'ont pas de leadership mhm. c'est un jeu d'enfant mhm. au Sénégal du réew bu ñuy jël part un jeu d'enfant Sénégal du réew moo xam ne ku ne da ciy am baat di wax day am kilifa am wax yaa ngi wax léegi xalif genre des les mourides là mais c'est un commandement librement consenti parce que le ci leadership le chef là il est choisi il est accepté le chef le marabout xalif général des mourides ñoom dañ ko topp te yàlla tax ñu def ko gidd ormal ko te yàlla tax ak mamam te mamam fi mu ko puisé ci Mouhamed sallallahu alayhi wasallam la ko mhm. puisé donc lolu moy leadership bi nga xamné naturel la ñu leadership yi ñi am c'est des leadership institutionnel ñun dañu wara a forcer suñu bop di respecter les principes ak les institutions alors taxawayu état dans tout ça mais l'état l'état day day réguler de protéger les honnêtes et de sanctionner les, les, les, gens qui sont en porte-à-faux. Mhm. D'où l'avènement du droit et de la loi. Mhm. Est-ce que tu état habillé à un moment donné nous japonais que dafa faillir à une mission à nga le maintien de l'ordre parce que

avant affaire bi di egg si telle que mu indi li nga dégâts humains mu indi dégâts dégâts matériels est ce que mënuñu woon jël les devant depuis le début. merci beaucoup kii comme ça encore tu as parlé de l'insécurité qui était constatée donc cela veut dire que les faits sont là l'élément matériel de l'infraction existe mais xamul tax état bi amoon problème parce qu'il y avait trop de mineurs utilisés et que l'état ne pouvait utiliser que les grenades euh, offensives et l'usage des armes. Parce que les violences étaient très graves et très dures. Mais chaque fois qu'on sortait, que les gens et les policiers sortaient, ils avaient des problèmes. Ils voyaient des gosses de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Là-bas, c'est les mineurs. Et les mineurs, son élément moral, son cognitif n'est pas reconnu par la loi. Tout ce qu'il fait, parfois on doute qu'il l'a fait sciemment parce qu'ils ont été manipulés. te ponkal qu'ils ont manipulé manipulés, ils à côté dem len len opposé vous am donc, mais juridiquement, c'était des mineurs. Donc, l'État cherchait chaque fois à, attendre à ce qu'ils exagèrent le mhm. Parce que c'est une solution. Parce que c'est pour boy répondre à leur violence. Mhm. Parce que la loi te propose, aujourd'hui, on est à 2000 morts ou 1000 morts. Parce que c'est impensable. C'était une méthode pour cadrer. Non, méthode, mais, il, fallait, il fallait cadrer et avoir les auteurs. Mhm. Les instigateurs, on les appelle. C'est comme la complicité. Mhm. La complicité, comme vous avez fait tout travail, vous savez que c'est outre que la coaction. Mhm. La complicité, c'est des instructions, assistance, ordre, mode, effet. Et puis la complicité peut aller jusqu'au après l'infraction, ce qu'on appelle le recel. Le recel, c'est la complicité par postériorité. Mhm. C'est un délai emprunté, il est toujours flagrant. Donc l'État avait des mineurs. On avait ici, parce que vous et tout, mineurs, donc oui l'État avait des problèmes parce que tu ne peux rien appliquer sur ces gosses. et que chaque fois qu'il sortait, il a tué les gosses là il y avait des morts et des blessés. Mhm. et puis l'État voulait voulait faire attention parce que sinon rien de rey il sa jarbaar il y des donc l'État n'allait pas s'en sortir moi tax état bi di top point par point de retenir infraction yi. Mhm. di def recoupement yi def investigation yi. am na xale ñu ci jàpp yóbbu ci mineurs mais après ay élèves nangam Étape chaque fois bu jàppee rek celui qui a fait plus de lay xaw pour la ce qu'on appelle l'intimidation ça entre dans la dans les fonctions de la peine. nous gis ni que ça, demoon nañ ba ay élèves wala ay étudiants yi nga xam ne ñoo nekk euh, classe d' en ñoom tam dañ loon jàppoon loolu dire waraloon. parfois ñu doon des élèves yi di génn dëkkee ay mbokkam génn nañ parcelle di wax lu ne. mais il a été instigateur dañ ko gosse il avait 16 ans 17 ans mais il était le chef de gang de li def parce que ñooñu la ñuy utiliser xam nga du mineur pourquoi c'est bon sur le plan juridique il est il est mineur et jeune. Mm-hmm. mais sur le plan physique ponkal lay doon am doole moo ñu ëpp doole man un gosse de 16 ans 17 ans il am doole nek ponkal lu la def. est-ce que japp nga ni une conscience yegg na fofu aussi. Uh-huh. non ils sont pas responsables pénalement administration le pour peine pour crime et délit c'est un hmm. moitié peine sax lañ leen di condamner parfois bu 13 ans yooyu dañ leen di confier sen parents. Hmm. tax ils ont été malades, ils ont xale yi mais la responsabilité des parents. aussi non si non si mais parents des fois Sénégal ni ko un parent sénégalais surveillons surveiller doomam fii dañ benn ba dañuy bari góorgóorlu gi da metti xalé yi dañoo garaaw et puis ku wax ñu genn et puis gars yi si te ils avaient donné consigne. Mm-hmm. que pour gosse di génn dee leen toj Auchan ñu jël alerte bon day tax ñu genn donc technique la buñ ñu def ñoom Auchan yi c'était pas c'était pas comme ça hein c'était pas con non c'était stratégique pour appâter inciter les gens à sortir bo ñé Grand Yoff Arafat kéro bi ñu tojee Auchan mais nga gis pas yu yenu sax saako ceeb yeeg yooyu. mais ngeen jéggal ma si kàddu yi mais dañ ne loolu parce que population bi dañoo xiif. loolu la ñuy wax ku xiif xam nga lu jënd ku xiif sa problème la. xam nga Sénégal luy seen problème nous aimons nous victimiser. Mm. et je vous dirai pourquoi nous nous victimisons. imagine euh, pour te donner un exemple xam nga man je suis père de famille. Uh-huh. yow tu es mère de famille et tu seras mère de famille. incha mais imagine ku xale boo wax Sénégal ci baan yi wala nangam dama bëgg a teral sama ndey teral sama baay jëndal leen kër kon bàyyi bi mu doon juró doom ku jur ay doom donc Sénégalais tout le monde c'est comme ça que ça marche paa bu nekk sa doom lay wutal bu kër naka la doom di wutale papaam kër. <laughs> di ko wutal màkk di ko faj di ko nangam. mais dou l'homme moo waral. Ah, xale yi jaar si géej moi il illogique bi bien ah. ça veut dire que y a l'échec des parents c'est l'échec des parents qui tue leur enfant. parce que xale bu nekk nga ne ko wutal ma kër nan nga jël sa doom wutal la kër un père de famille doit chercher une maison pour ses enfants. mais nag mais nag bu ñu que daanaka euh, ci ci ci aada baaxoon nañ di gis doom juddu. non man teral teral mooy defal la teral. man sama papa daf ma dugal ci kër man liggéey teral ko man liggéey di ko defal ay dafa am liggéeyam nekk alkaati am pension am këram mais imagine yow naka mais imagine c'est le revers naturel même de de de l'ordre naturel des personnes comment un père de famille yow yow nga jur doom ba pare doom ji doog moo lay dundal moo lay wutal kër mais c'est c'est pas possible

bon comme yeggaguñ ci on peut aller jusque là-bas Bonne ñu fa on n'a pas à le développer. Mhm. pour que sénégalais ñu waxante dëgg xam fi ñuy parce que gis nga li ñu ko nii. ak mhm. naa fekk bi ñu ci dugal nii. Mhm. moo tax gauche yi di dee en masse. gis nga Fass Boy man nalaw ma depuis 72 heures. parce que dama imaginer un un un petit village.

Imaginez, 64 imaginer personnes. Mhm. même si doon sax normal. sax famille famille personnes. mais huit responsabilité. Mhm. même si doon sax dañuy tukki normal am visa. sax l'islam ñun suñu coutume ak yooyu dafay tere sax nga fukki ci ah, parce que des fois sax dañ koy wax. mais famille. du mhm. d'habitude rek la

boy bi ci maire bi porte parce que Espagne le tout ce que les Espagnols ont dit que c'était les premiers organisateurs. Mm-hmm. man ma xey le matin di len investigation investigation mm-hmm. ma arrêté len ci suba parce que ñom ci dara c' le début. c'était mm-hmm. en 2006. en 2006 espagnol ñeu ñëw validé Frontex man maa tax ñu validé ko maa jàpp ñëpp à l'époque maire boobu 136 bay la jaay wanter leen doom ji dem dee ñu ñëw di ko manigancé mu ñëw porte plainte Dakar ci li buy mais ma ne ko mais yow mais yow amatoo lay wax 136 bay sa doom yor ko bay bu nek déjà bu ci amee 80 femelles elle elle elle met bas au moins tu as 80 avec la morbidité, je ne parle pas de la mortalité, il t'en reste 60. 60 tu es bon, 20 000 annuellement yow tu doy la yow kay yow yow da ngay tu de la tu mhm. voilà imagine des parents yoo xam c'est yow sa sénégalais à ci bi sama wutal ma sama mais mais échec mhm. des parents qui ont échoué et qui font du chantage moral à leurs enfants. c'est de la contrainte morale donc source bi foofu nga ko parents yi échec la mhm. di am ay jabar di takk ay doom di juri doom te jàppoo ci dara organisé woo dara mhm. bale nag goos bu ñu seen njàng du baax seen dara du baax nga sëkkatal leen pour ñu lay yor ak di la dundal loolooy problème bi yor man maa ngi nii samay doom mais kenn du ma laaj kenn un ñoo lay defari cadeau nii te il travaille comme moi il est mm-hmm. gendarme comme moi fonctionnaire comme moi. mais éducation bi aussi ça joue investir man. Mm-hmm. dama caaxaan man ba ma demee di wut kër ba may liggéey gendarmerie man vingt ans laa leb kër maa fay sax courant bu weer dee courant bu ñëwee mënuma koo fay man dem naa ba nekk MDR aw ma frigo mais yow mais ima sama papa dafa dem wut kër ñu dëkk ci. ak nu mm-hmm. condition nu mel ñu dëkk ci kër bu jëlee pension lañ ci dundal bu ñuy lekk cere ak mbubb ak mbaxal mais mu casqué ko. mais on ne nous a jamais demandé de lui construire une maison ou quoi que ce soit. On ne peut pas être dans un pays où c'est la progéniture à venir qui doit chercher une maison, doit soigner ses parents, doit les gérer. Mais cela veut dire c'est là où il problème. Mais et l'avenir de la jeunesse dans tout Mais c'est ça, c'est nous les parents qui avons sacrifié nos enfants. Parce que nous avons bien organisé. <laughs> Ah, mais imaginez, par, par année. Mais quel enfant tu pourras gérer tes enfants ils vont être des agresseurs et des, gens qui vont se tuer dans l'eau. Mhm. Parce que tu as am jom dañuy jéem a par la force alors que tu ne leur as pas donné des atouts de réussite tu ne les as pas mis dans la dans la dans le chemin de réussir. Mhm. ils ne remplissent pas les conditions pour réussir. maintenant ils utilisent les méthodes violentes sur eux-mêmes il faut que nous tekki. mooy agresser ak mhm. agresser finalement dañuy risquent de mi ndox mi sax booy bu ñuy dem dañ Barça wala Barça. parce que nous savons que ñoom. déjà conditions yi ñuy nekk duñ ci

combien de personnes vendent des fruits les fruits pour nga lekk 15 000. nga jaay 15000 do mm-hmm. doo gis benn booy sénégalais bu tek table fruit du jaay do gis ben boy sénégalais rarement bu teg charcuterie boucherie mu melni complexe les. non mais on a des problèmes parfois dañ lay proposer ben liggéey ne man duma ko def aussi sur les causes de l'immigration ma wax la mm-hmm. explication dinañ ci axe kon ma ba mm-hmm. parce que je vais te faire aujourd'hui une définition scientifique je vais te donner les causes pour lesquelles le Sénégal a des problèmes de chômage et les ce qui en sont les responsables et et pourquoi alors Nguer naka nga gisee euh, le fait que euh, drame bi nga xam mo am fofu ci face boy ñu giss ni ka sax jeune yu bari dal di nañ ci ñak sen bakan. alors yow sa position en tant que jeune ak li nga xam yow yaakaar naa ne sax sa xel demul ci ngay jaar si géej gi <laughs> lan moo ci sa sa ak sa position. en tout cas mbir mu doy war la. Mm-hmm. mbir mu metti aussi euh, parce que tey ni nga nek jeune euh, wara mëna peut-être am loo jariñ sa réew